Maxime Matoum. ne mu ngi leen di nuyu ne kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant ne mu ñëw tey ne du tey laa fi mës ñëw ne xaw naa ko miin tuuti ne Moustapha Cissé mii fi jóge nee ñëpp xam nañ sama digganteeg moom nee sama xarit la nee xarit ci wolof mooy nee fa tabaarakallaa su fekkee ni doomu aadama dafa mën a dagg yaramam genn wàll gi jox ko nee moom mu jox la genn wàllam nee noonu laa dem ak sëñ Moustapha Cissé nee fu ñu daje sax dañuy kaf ne ndax man moom li mu sant Cissé man ma sant Wade ne mu xaw maa jaaxal sax ne ba jël xalifa bu sant Cissé ne xanaa ku sant Wade nekkuloon pire ne kon mu ngi leen di nuyu ne Moustapha Cissé ne Serigne Moustapha Cissé ne dafa amoon beneen wàllu goo xam ne ne dama ko ci wóolu woon ne yàlla suñu borom ne yàlla daf ma digtaloon ñaan gu mu war a ñaan ne ngir ñu mën a yërëm julli bi ne ngir yàlla mu mën a yërëm doomu aadama ne ñu bari ci yéen xamuñu lool ne di ngeen ko mës a yëg nag ne ñaan gu jafe ne ñu boor koo def ci bëri àdduma yoo xam day war suuf si ne li ñuy wax 24 fuseaux horaires ne ne diggante ñaari fuseaux yu ci nekk ne nga teg fa lu toll ci juróom-ñaari nit ne nga wax leen ni ñu war a wàccee alxuraan ne ci benn waxtu woo xam ne ne huit vingt lay daje ak Makka ne muy timis ne lu compliqué la ne ñu ni bu ci benn xaalisu jàmbur dugg ne bul demit ci kenn naan ko dimbalam ne yow na ko def ci sa alalu bopp ne bëgguma cee sori sax ndax di ngeen ko mës a dégg ci télévision ne ñu expliqué ko ma ne ma woo fukki sénégalais ak ñett yoo xam dama leen a wóolu ne ci seen xam-xam ci alxuraan ne Moustapha Cissé ci la bokk ne ma yónni leen ñu dem ne fayal na avion ne bu ñu dem hôtel ñu dalal leen ne li ci war yëpp ne ñu ñaan fa na ma ko waxe ne ñaan googu ne moo doon moo doon benn ne ñett nag la waroon a doon ne yëpp mu war ko def ci sama xaalis ne ma dem Màkka ne buuru Màkka ne ma nettali ko ko ne mu ni ma loo soxla ne ma ne ko dara ne bu ci duggee rek mu yàqu ne dama la koy xamal rek ne waaye maa ngi ci ne maa ngi koy jéem ne mu am benn waay boo xam ne ne ci ambassade ba la nekkoon ne ñu ma kii ku am xam-xam la ne tee nga waxtaan ak moom ne ma woo ko mu ñëw ma ne ko ne man de dañ maa sant ñaan yi ne ci biir wàcce alxuraan nee ci fukki point ak ñaar ci adduna bi ne bu ci nekk nag dafa am nuñ koy liggéey ne te ñu ni ma sama xaalis rek a ci war a dem nee xaalisu kenn waru cee dem ne yàlla fekk na booba ne sama kartan eggul ci def ko nee mu ni ma am na loo xam boo ko defee ne moom ak li ñu la sant benn la ne ma ni ko lan ne mu ni ma fii ci Makka ne gis ne mun ko gis nga kaaba gi ndax booba ñoo ngi tiim kaaba gi ne ndax fa la ma buur bi dëkkaloon ne mu ni ma kaaba gi am na bunt ne ci sud ne foofu boo fa taxawee ne ñu indiqué dinaa la indil ay équipe ne ci ni mu toll ci fukk ak ñett yi lim boobu ne kenn ku ci nekk nga wax ko fa mu war a taxaw ne ak waxtu wa ne ñu ñaan-ñaan googu ne dafa mel ni déplacement bi nga doon wax ne ma ne ko bisimilah ne indil ma gaay ne ñu placé leen foofu nee ñu def ñaan googu nee ma defe ni maa ci nekk nee ma tëdd guddi nee ñu ni ma waxuñu la lii de nee nee plan ba nga joxe woon moom lañ la wax ñetti yoon nee comme dama ko war a wax ci télévision àddina yëpp yëg ko ne te ma décidé ne damay dem ba Arabie Saoudite ne wax ko foofu nee naa yam ci lool rek waaye daal ngeen xam ne Moustapha Cissé ne bokkoon na ci équipe bu ñoo xam ne dama leen woolu woon ne nag du ci sama xam ne du ci sama xam-xam dama ci indication ne du ma toog rek ñu ma benn waaye buy dem rek ñun ma kii mën naa alxuraan ma dugal ko ci nee dafa am ak fu ma jaar ak ñoom nee ba ñu am confirmation boobu nee loolu tax ma sant leen loolu waaye boobu ba tey nee ma gis adduna bi doxe rek nee benn catastrophe yegg si nee buñ ca jógee nee beneen catastrophe yegg nee mu metti ma lool nee ñu xamal ma ni nee lii la sant boo ko defulee nee nit ñi di nga leen ameel ak nee ndax dañ laa yónni ci loo war a def fekk lu ko jiitu nee may waxtaan Cheikh Tidiane Sy mii ne nee ma ne ko Cheikh Tidiane mu ne ma nee ndax dafa nekkoon sama xarit nee gën maa gudd àll woon nag ma ne ko Cheikh mu ne ma waaw ne mu ne ko ba Cheikh ndax nga tëdd guddi ñu di la sa alxuraan ne mu ne ko man kat dama def ne seytaane ngi may bëgg a dugg ne mu ne ma seytaane mën na lu ne ginnaaw lool ne loo gis mu jaajee alxuraan ci guddi gi topp ko ne topp ko rek ne seytaane xajul foofu ne parenthèse boobu rek la bëggoon a ubbi ne ngeen xam ni Moustapha Cissé nee ci ñi ma gënoon a wóolu ci côté boobu ci la bokk ne ma yaakaar ni ne am na lu ko yàlla may ne konte maa ngi leen di gërëm ne damaa ñëw rek ngir jaal leen ko nee ndax àdduna moo mel noonu ne damay wax ne ne loo bëgg-bëgg nit ne su feebaree ne nga sonn ci faj ko ñaanal ko yàlla ñàkk ci sa xaalis nee waaye bu ko yàlla jëlee nee nga nangu ko ne mooy décret bi ne ñun julli loolu moo ñu may chance ne loolu tax lu mu metti metti metti ne ñu mën koo muñ waaye léeg-léeg nga ñàkk loo xam ne da ngay defe ne doo ko mën a supporter mukk waaye yàlla dimbale la ba nga mën koo supporter moom dafa xaw a mel dama koy jeeneer ne yàlla ma ko yàlla jéggal ne kon sëriñ bi maa ngi lay jërëm bu baax ne yàlla na la yàlla dimbale jàppale ci lii nga xam ne ne moom nga yenu muy lu diis ne jiite dafa diis ne dafa metti ak bu mu ci mën a doon ne jiite àdduna wa ngay kilifa diine wala kilifa àddina ne boo ci yor rek ne metti na lool ne ndax ni ñi ne lépp lu leen dal lu leen metti ne nga yëg ko ne ku ci am soxla ne foog na ni yow rek yaa ko mën a faj ne mënut a gëm ni ne yow mënoo faj soxla si ne mu nekk lu doy waar ne suñu borom rek a ñuy dimbale ne yàlla na la yàlla jàppale ne yàlla na yàlla woyofal yen bi ne man ah, man mu ma dara ne man daal bàyyi ma politique maa ngi ci biir waaye xëy na li ma mënoon dem mënatuma waaye li ma mën dinaa la ci jàppale ne loolu rek laa doon wax yaa bëgg Sénégal ne jërë jëf mu leen di gërëm bu baax laa yaa di